laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa turidi taatumi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim kon xam naa ne mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ginnaaw bu ñu nuyoo alxalifatu am li tayfatil muridiya cheikh mouhamadul muntaqa di ca teg xalifab daaru xuddo cheikh ahmadul muxtaar ak Cheikh Abdou Rahman Gaynde Fatma mi nga xam ne moom mooy xalifa bi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye du nuyu bu baax a baax suñu yaakaar tey ak ëllëg di Cheikh Moustapha Mbacke Mouhamed borom niveau ji yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu te may ko ak bëggam comme niñ ko xamee tey di bisu gàmmu di fukk fan ñaar ci weeru gàmmu ñu koy màggal fii nga xam ne moom mooy dëkk bu sell bi di Taïf ñu taxaw ci buntu barabu koo xam ne yaakaar naa buñ ko tuddee ci yoonu ñëpp xam nañ ko waaye waxuma yoonu murit waaye buñ ko tuddee ci lislaam ñëpp xam nañ jëmu jooju mooy kan te mooy Serigne Mbacke Soxna Lo euh, Serigne Mbacke Soxna Lo moomu nag lañ bëgg a wax tuuti ay kàddu yoo xam ne day jëm ci jëm moom ju tedd joojee ndax moom ku nekk xam na ne sauvetage la woon ku nekk xam na ne jàmbaar la woon joo xam ne dundam gépp da ko passé ci liggéeyal lislaam dundam gépp da koo passé ci jariñ nit ñi ndax jàpp naa ne wax na ne moom ci boppam bis bi nga xam ne ci la feeñee jamono fële ca Naydé yaakaar naa xéewal gu rëy amoon na fa ndax dafa doon taw taw bu bëree baree bëri loolu di wane xéewal goo xam ne moom la borom taayif lamboo loolu di wane tab goo xamante ne moom la borom taayif lamboo euh, mu nekkoon jàmbaar joo xam ne buñ ko tuddee ci lislaam ñu bari xam ko ndax moom da daan wax naan damaa xool bunt yi nga xam ne moo ñu suñu borom buntu joxe sa alal te yàlla tax gën caa wéet ma toog ca ci bunt boobu ci la liggéeyale suñu borom ci la liggéeyal lislaam liggéey bu rëy rëy rëy muy buntu joxe alalam te yàlla tax nga xam ne ñi ñëpp ñoo ko xamoon ñi nga xam ne ñoo nekk murit ak ñi nekk woon murit ñëpp xamoon nañ jàmbar jooju li nga xam ne ni islaam jaraloon na ko ko waaye ñëpp xamoon nañ jàmbar jooju li nga xam ne liggéeyal na ko lislaam ci wàllum joxe moo xam muy togg aw ñam joxe ko te yàlla tax moo xam jël alalam jox ko nit ñi te yàlla rek tax moo xam muy joxe ay oto wala yu mel noonu wala ay kër ba ci ay terrain ndax bari na ñoo xam ne bu ñu amee terrain tey jëmmam jooju la bari na ñoo xam ne bu ñu laalee million jëmmam jooju la bari na ñoo xam ne bu ñu yoree oto jëmmam jooju la Euh, dañuy faral di wax ne sax dañ may faral di nettali ne am na ñaar ñoo xam ne ci yoon wi ay kilifa lañu woon waaye dañoo xawoon a am ak dëngoo ci seen biir waaye ba nga xamee ne Serigne Mbacke Mouhamed yëg na loolu di leen woolu ba ñu daje fii ci Taïf ci keesam ga ñoom ñaar ba mu leen a jubloo keroog kenn ku nekk da a jox soixante-dix millions kenn ku nekk trente-cinq millions ngir ñu tegawaat ci aw yoon nga xam ne defaree na ko di mën a am wax nañ waaye keroog si Mouhamed ñetti takk la ko si yónnee yoo xamante ne ni benn bu ci nekk am million la def yàgg naa dimbali jullit ñi yàgg naa dimbali jaamu yàlla yi ci anam yu nekk fii ci tay digal nañu fi lu ne daanañu digal ñuy jaamu suñu borom te bañ koo bokkaale ak dara bu ñu gisee kon tey ci màggal gi wala boog ci gàmm gi heure bu ñëwee ak nii ñu koy taxawale fii Taïf Cheikh Moustapha Mbacké taawam ba di ko fi taxawal ci anam ba gën a rafet di ci roy maamam ji Seexul Xadim radiyallahu anhu lépp dañuy wax ne naa li Serigne moom la àggale yéene Serigne Mohamed moom la àggale ndax Serigne Mohamed mii tëdd fii tey moom day bokk na ci ay naal yi mu naaloon ne bu ko fekkatee ak jàmm ci pàkk bii dana fi woote li nga xam ne moom mooy gàmmu jàpp naa waxoon na maam soxna maam bu sa Mbàkke ne ko boobu dama faa bëgg a woote gàmmu te ku nekk xam ne moom waaye si Cheikh sa ba mu ñëwee rek daa daal di woote loolu nga xam ne moom moo di gàmmu ci pàkk bu tedd bii nga xam ne fi lañ denc sëriñ bi kon dañuy jàpp ne woote bi woote bi sëriñ Mbàkke Mouhamed la boo xam ne sëriñ bi da koo àggaleel ak yéenem yàlla nañ ci daje ngërëmal sëriñ bi ñun ñëpp gàmmu gi nag ku nekk xam na ni ko sëriñ bi bëgg woon sëriñ Mbàkke Mouhamed même bu fi nekkoon mënta passé nii nga xam ne noonu lañ koy doxale ci dëkk bi te mooy jàng alxuraanul karim jàng xasiday sëriñ Tuubaa yi di reges ak di kuréel di bernde togg ay ñam di ko jox nit ñi te yàlla rek tax noonu rek la ñuy defee gàmmu gi fii nga xam ne moom moo di Taïf di ko ànd ak taawam sell bi di Serigne Moustapha Mbacke Mohamed yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu te wéral ko kon xam naa ne loolu mooy li ñu tënkoon ci ay kàddu ñu xam ne daal dëkk bii dëkku kilifa la euh, jàmbaar ji nga xam ne moom moo nekk suñu ginnaaw di Serigne Mbacke Mohamed nekkoon koo xam ne liggéeyal na lislaam liggéey bu rëy rëy rëy yàgg dimbali nit ñi te yàlla rek tax dundam gépp mu jeexal ko ci yar ay nit teg ci yoonu yàlla ba kenn ku ci nekk bu jugee fa mu ko doon yare fa mu fu mu dem ñu jox ko ab cër mu mën a defare defaru bay mën a defarewaat loolu rek moo nekkoon mission am te réussir na ko yàlla na yàlla yokk ay leeram taasin ci barkeem te yàggal fi Cheikh Moussa Mouhamed te yàggal fi mboolem taalibe yi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu laylatu mawlidi nabi laylatu mahwirriya bi laylatu ma wita bi wa turidi taatami